جتل خلات والسبب دي ماري جتل خلات وجتيني مرة فيربي سلم كي دكتور نو نو فيبر بي باغل بتشاخان دي ñun ñëpp a jommi te gisuñu diine aduna pauvre ni bisawo Guinée doon jaay doo la ñàkk kattan ndogonu yàlla jàmm su ko attan teel a dagg nelaw fajaro ku bañ a faju fa nga fagaro sénégalais dafa dëgër bopp mais waxtu maytu dafa jot écoute les médecins lave-toi les mains nuit et matin waaw ñoo ngi nii si place su Amy Ndoye euh, lu tax ñu ñëw fi mooy euh, feebar boobu nga xam dafa lëmbee jamono euh, muy coronavirus léegi tamit ñu ñëwoon fii sa place di la laaj yow feebar boobu noonu lan nga xam. ak tamit la ngay euh, wax askan wi euh, pour sen walu karange ak yooyu ñu bay la nga présenté wu. assalamu alaykum mbokki ay nuyu wa Sénégal yépp di len nuyu di rawatina waa Ngaay gi ma nekk euh, di feebar bi nak li dal ñëpp rek moma ci dal hmm. jaxlé ak ci moom ci jàpp ci jàpp ñepp parce que lu jaxal ñepp la hmm. lu jaxal monde entier bi yëpp la te di ñaan yàlla rek li nga xamante ne moo fi wàcc di saafaraani ko. di ñaax suñu mbokk yi tamit nag luñ ci mën ci moytu ñu koy def ci moytu. Hmm. bokk na ci di raxasu. Hmm. Euh, bokk na ci di jël gel yi gel di ci ci di koy utiliser pour loxo yeeg yooyu rawatina sama mbokk jigéen yi ma nekkal ci marché bi ñuy faral di raxasu bu baax a baax a baax. raxasul moom yaakaar naa lu ko ci tànne bari yi di moytu saafoonte bi aussi ak daje mbooloo yu bari yi di moytu tamit taxaw ak nit di di siyoli à l'air libre ni ngay sëqat te doo protéger wu yooyu yëpp ñu koy moytu ndax nu yàlla wàcce la te jaaxal ne ñëpp daal vraiment jaaxal na ñëpp jaaxal hmm. allah hmm. ok ñu ngi jaajëfal say euh, kàddu euh, rafet na. jërëjëf merci beaucoup. vraiment ñu ñu ngi fi nekk nii man menuisier laa mais fi nekk nii suñu liggéey fi nekk nii dafa taxaw. Hmm. parce que fi mu nekk nii ñu ngi war a jënd ay bagages. Hmm. ñu ngi ko war a jënd fi ba Dakar mais oto boo jël ay cinquante mille la lay wax wala ay cent mille franc la lay wax. pour oto hmm. bagage pour jëm ngay mën di ko jël. mais da nga da nga jëm obligé léegi toog léegi di xaar. di xaar xëy na peut-être ba affaire bi dal. mais affaire moom vraiment vraiment moom vraiment moom laal nañu de trop mais grave sant yàlla bu baax a baax nga mm. xam te xëy na peut-être ñu client yi dañuy ñëw jox la sa xaalis mm. nga téyu ko mais da nga fay nekk sa loxo lu yàgg yàgg yàgg doo mën a doo doo a dem jënd bagage te da ngay dem fii ba Dakar wala fii ba Thiès dem di jënd bagage wala fii ba Thiès mais mm. oto si boppam dañ lay jël charge yoo xam te si yow bénéfice ko sax mën a kii kon daal kon daal yow da nga gis que ni euh, kii bi coronavirus bi gàllankoor la ba nga xam ni yéen da leen da ngeen ko yëg bu baax daal daf leen affecté bu baax de telle sorte que yéen daal seen liggéey dafa tagga tembe maanaam daal non dafa tagga tembe bu baax a baax suñ liggéey moom dafa tagga tembe bu baax a baax moom mm. dëgg yàlla ñu ngi dëgg de dëgg ma liggéey dafa tagga tembe bu baax a baax mm. parce que fi mu nekk nii loo daan fay juróom mm. ah cent franc nga koy fay ci transport Hmm. xam nga loolu loolu moom loolu moom tag na téeméer bu baax a baax hmm. moo tax fi nekk ni ñu di di di toog di xaar xay na peut-être mu dal hmm. wala mu wala gën a wàññeeku mais yàlla na si yàlla def saafara daal léegi yow lan nga wax lan la kii lan nga wax ñi nga xam ni euh, tamit xamuñu feebar boobu tamit yow lan nga leen wax non feebar non feebar boobu lu am la feebar boobu lu am la parce que man parce que man parce que man wax nii mais man samay am naa samay am naa samay mag yu jigéen yoo xam te si ña ngay ña nga ña nga Espagne mais c'est que ñoom da da dañ la wax foofu daal la foofu la fa dee duñ la ko mën a wax quoi hmm. mais da lay wër na feebar boobu lu am la moom ko koy wedd moom da nga xamul rek hmm. mais feebar boobu lu am la loolu ko mën a moytoo si yow boobu ngeen ngeen ngeen moytu ko hmm. surtout surtout kii bi surtout surtout tamit dajaloo bi surtout da surtout dajaloo bi war nañu war war ko war war war nañ koy éviter ak tamit fu euh, fu ñu di gars yi di laal gel di di di raxasu ba set ah boo dee génn mujj ngeen mooy ngeen moytu di di distance bi moom lu am solo feebar moom am na moom. Mm. réalité la ku ko ku ko ku ko ku ko weddi rek ah. Mm. ku ko weddi rek moom bis bu la ñaan ñaan ñaan ma ko yàlla moom. waaw moom yàlla na fi yàlla mu gaaw jeex. dégg mm. nga nit ñi delluwaat seen activité quoi. surtout surtout surtout. waaw waaw. ok ñu lay jaajëf bu baax ah. waaw jërëjëf ok. Badou Mag ñu ngi lay euh, ziar. waaw ñu ngi lay fay di waaw euh, boo gisee lu tax ma. Euh, Euh, boo gisee tey lu tax ma taal la caméra bi nii di la interview mhm. feebar boobu nga xam ne moo lëmbee jamono muy euh, coronavirus mhm. gis nañ que ni lu bari dafa tàggateel mhm. maanaam ci wàllu koom-koom wàllum liggéey lépp daal dafa taxaw ni selaw da yow nan nga ko yëgee ak nan nga ko dundee waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla julli Seydina Mohamed mm. sallallahu alayhi wa sallam mm. sant euh, sunu ñaari waajur bu baax baax di ñaan yàlla na jàmm yàgg Sénégal waaw ah, vraiment taf tey da nga wax loo xam ne tey vraiment sama xol dafa sedd ci li nga ma laaj ndax xam nga lu tax ma sama xol sedd ndax naa saara wax ak askan wi ndax gis nga àdduna bi ñun ñoom moom suñu senegal gi maa jëlale Sénégal mais affaire bi dafa àdduna kon li nga xam ne mooy feebar bi euh, xew ci àdduna bi ñun nit ñi ñoo ko war a saafara suñu bopp mais bu nee bu nuyoo nga nuyoo bu nee la defal li nga def leneen kon yaakaar naa ni loolu ku képp kuy doomu àdduna képp koo xam ne rek yaa ngi ci àdduna bi damaa jëlal Sénégal rek war ngaa moytu tere yooyu ngir ñu mucc ci feebar bi léegi yow noo ko yëgee ak sa liggéey ne si jamono yi. waaw li ma ko yéegee rek mooy euh, sant yàlla rek. Hmm. ndax ku ne xam na ni àdduna bi fan yi ñu toll ni metti na trop mais lépp loo mën si gis si àdduna wér-gu-yaram moo ëpp solo. Hmm. ndax tey jii loo loo loo dem bay ba bay kii danga ko war a tal. Hmm. ndax ku ne xam na feebar bi metti na. tey bu ñu sañoon sax kenn du génn sa kër da toog sa kër. li nga bëgg a faj di ko faj. ndax boo gëm tey ji naa jóge sama kër dem xëy dem jaayi dem jaayi fenn feebar bi mar day taal jële fa feebar bi indi ko sama kër rey sama waa kër waaw mais xam nga tamit tamit wax na pour ñu toog suñu kër mhm. mais que tamit euh, est-ce bi nii mhm. bi warul xool nu mu def ak euh, kii instant population sénégalaise wala mhm. waaw mooy li ma wax démb rek euh, xam nga tamit am yoo xam tamit état bi moom foog mu jël tamit ay responsabilités parce que mënoo borom kër koo xam dafa war a xëy dund ak njabootam nga ko doo génn sa kër. Hmm. dèjà dama jëlale feebar boobu rek. mais loolu rek feebar la. Hmm. kon euh, muy appel état bi. Hmm. vraiment moom it ñu jël seen seen disposition ñu jàppale askan bi nga xam ne tamit président Macky Sall moom mooy borom réew mi te lépp loo xam ne tamit bëgg na ko askan wi dañ cee war a taxaw. mais nag moom it aussi nag gëstu askan wi xam ne askan wi tamit affaire fi ñu toll nii métti na trop. borom kër goo xam da nga daan génn dem di lijjanti ji tey mënatoo génn di ji. xam nga vraiment tey maa ngi commencé appel mu lu mu gën a gaaw mu jàppale leen bu dee ceeb baax na bu dee diw lañ wala suukar wala lu mu leen mënta jàppale hmm. te bu ma soñoon deux mois yi mu jàppale leen ci facture courant yi ak facture ndox yi ndax metti na trop hmm. tey borom kër goo xam tey amul lu mu dundee nga boo ko laaj facture courant wala nga laaj ko facture ndox da nga koy gën a yokk sibro rek vraiment daal may may encore appel mus ak ñi nekk autorité yi nekk ci dëkk yi comme mënti ne monsieur le maire ay autorité na ci ngaay boo limee da ngay jëm ak képp koo xam ne war nga koo dimbal rek borom ak daara yeeg ñoo xam néew gi dool la ku nu mën a jàppal te yàlla tax na nañ ko jàppale parce que affaire yi moom fu mu nekk nii ko yëg quoi sérieusement parlé hmm. di jël affaire aussi di la gërëm di la remercier ndax vraiment ñu mel ni yéen ñeen ay référence ngeen koy ngeen aussi askan war na leen a gestu di leen jàppale hmm. ndax li naan ko am taxi ku amul oto biram bokk la ci kon vraiment boo ko ñaan boo ko jàppale rek moom mu dem hmm. encore une fois yàlla na yàlla gën a <coughs> wéral affaire yi gën a yokk promotion bi ba fi ñu dégg ay ñoom DJ Bousso yooyu ñoo leen fay dégg ndax yéen suñu sag ngeen suñu tiitar ngeen ñu nag vraiment artistes ngaay yi ñu ngi def mobilisation dugg ci kooñ yi xam nga di sensibiliser nan moytu kii nuyoo bi tey raxasu saabu yi xam nga di moytu dox bu bari beeg yooyu vraiment metti na met mettan foog ñu muñ ko quoi ndax lu metti yàggul hmm. di ñaan daal feebar bi yàlla na ko fi yàlla jëlee gaaw a gaaw a a gaaw balaa mu mat ñaari fan mu jële ko fi indi fi nag naatànga bu xam ni adduna bi day neex ba faw dootul am benn naqar yàlla dafa nu fanu gudd wér-gu-yaram xam nu seytaan dafa nu ceeb ñu ngi koy faat li tëf merci beaucoup ñu lay jaajëfal bu baax ok say kàddu rafet merci beaucoup salaamaaleykum ñu ngi lay euh, ziar bu baax waaw temps yëpp si jamono ji feebar boobu noonu lañ wax muy corona gis nañ que ni mi ngi lëmbee jamono te lu bëri tàgg tembe na maanaam bon lu bari lu bëri doxatul noonu ba tax na ñu bëri ñu ngi toog euh, seen kër léegi ñu bàyyi la nga présenté wu tamit ak am bu fekkee am na message booy lancé tamit nga nga la ko. waaw euh, di la nuyu bu baax suba doom Moussa Ba di la sant. Hmm. di lay ñaanal tamit. Hmm. Euh, di wax ni man la mbay baabu hmm. mbay baabu mooy président handicapé yi fii ci Ngaye. di tamit vice président communicateur traditionnel. fii ci Ngaye Mékhé tey euh, lii nga ma laaj lu am solo la parce que lii nga xam ne moo lëmbee àdduna bi lëmbee fii nga xam ne tey jii moom fi rogalaat di wàcc ci sunu réew muy Sénégal li muy gën a ñaax nit ñi rek mooy nu fagaru ndax fagaru dafa gën faju tey jii boo gisee réew yu bari jaaxal na leen mais ñun bu nu àndee ñaan ak li nga xam ne moom la président réew mi digle ak médecin yi Euh, mën na bañ a bañ na bañ a toll foofu ci ñun. Hmm. parce que ay nit ñu baax ñoo fi ne ay nit yi diine ñoo fi tëdd ñaanoon fi. Hmm. sa ñaan yooyu mënul niil. Hmm. waaw kon na li ci def daal mooy nu fonk suñu bopp fonk suñu bopp mënta weesu. di raxasu di moytu mbooloo mu bari mi. ceeb tamit di moytu saafonte bi. parce que réew mee ko laaj. lu réew laaj nag. noonu rek lay mën a demee. Hmm. ñu jàppale tamit kii nga xam ne tey mooy commandant bi ma seet si ko. Hmm. muy sunu xarit. Hmm. nga xam ne li ko gën a ñor tamit mooy commune bi. parce que nee na ma mbay dama bëgg ñëpp am jàmm. li may jàmm nag dëgg la. ku am moom ku bëgg jàmm la. commandant ku bëgg jàmm mais il faut nit ñi rek wut fekk si ko ci jàmm ji. di wax tamit nit ñi. nanu moytu maytu dafa am solo. moytu dafa am solo. moytu mënta weesu li li li président réew mi bëgg ko. meru dëkk bi bëgg ko commandant bi bëgg ko hmm. nan ko ci fekk ci rek hmm. buñ ko ci fekk ci rek jammam hmm. parce que ku la kay nga def li ngir yow sa bop nga am wër am jamm koku yow la bëgg kon nak manam bu nu xiiranteeg ñom ak di ŋaayanteeg ak mom xamni la sangul sa tar la bëgg corona na ఓకే టఫ్ కనెక్షన్ si sensibilisation on feebar boobu ñu euh, corona instant bi ñu ngi fii nii euh, maison euh, maison justice bu bu Ngaye Mekhe juste tamit pour connaître une sensibilisation motax tax ñu ñëw fi légui comme bon gis nga feebar bobu non mi ngi lëmbee jamono léegi ñu la doon wax tamit ban message ngay lancer population bi tamit ñu bàyyi la balaa boobu tam nga présenté bon merci beaucoup. man maa ngi tudd Mouhamed Diop. Hmm. Euh, nekk le coordonnateur de la maison de hmm. waaw donc di leen remercier également yéen tamit. Hmm. ci liggéey bi nga xamante ni si yéen a koy def parce que lii nii ku nekk la war jamono yi. waaw je pense que euh, coronavirus moom euh, jaloore yi nga xam ne ñu koy def ci ci ci ci ci bi gëm naa ni ñëpp ñu ngi koy ñu koy ñu gis di ko dund tamit. waaw donc li ñuy wax rek mooy. Euh, na ñëpp sàmm teg digal yi nga xamante ni si. Hmm. Euh, ministère de la santé ñu koy ñu ngi koy digle. Hmm. ngir ñu mën a wàccoog loolu pour mën a moytandiku feebar bi. Hmm. waaw donc boo xoolee sax ñu fii. ci ci maison yi. donc boo dee dugg di gis ni teg nañ fa benn satala. teg fa siwo defar ko ba mu normal ba nga xamante ni si képp kuy dugg ci da ngay raxasu sa loxo ba mu set. boo ñëwee aussi tamit li nga xamante ni si moom la ñuy wax distance sociale. Hmm. loolu aussi dañ koy respecté. Hmm. donc nombre yi nga xamante ni si aussi tamit dañ koy jël par jour surtout par rapport ak médiation yooyu yooyu. Hmm. dañ ko xaw a donc loolu toujours ci ci ci suñu ay kilifa. parce que barki démb rek lañ jot benn note de service. bu ñuy wax ni donc pour sàmmante ak ndigal yi nga xam ne moom la moom la moom Macky Sall digle. donc dañuy nañu arrêté médiation yi. liggéey boo xam dañ koy def muy dépassé deux wala trois personnes. Hmm. ñu ñu ajagu ko ba ba wopp di jeex. Hmm. li ñuy wax daal mooy ne ñëpp sàmmoon tere yi xëy na euh, danoon ci réew moom nga xamante ni si euh, dafa am ay réalité boppam. Hmm. waaye nag comme wopp gi moom réalité la. te vraiment jafe-jafe yi muy def ci àdduna bi ñu ngi koy gis ci ci domaine yëpp nag. waaw donc na ñëpp daal sàmmoon teg di di di raxasu boo génnee sa kër boo duggee sa kër nga raxasuwaat ak saabu. distance sociale yi également ñu koy respecté bu fekkee ni mënoo bañ a génn. ngay moytandiku di di di jege nit yi. Euh, ci ay distance yoo xamante ni si dina dina dina toll ay benn mètre. donc ndigal yooyu gëm naa ni incha allah bu ñu sàmmanteeg moom. ak ndimbalu yàlla suñu borom. Euh, yàlla mënoon a dimbali. ba wokk bi incha allah rabbi bu jógee ci réew mi. waaw waaw mais tamit bu nee tamit maison de la euh, justice. tamit mën nañu wax que ni foofu noonu wàllum yoon la te gis nañ tamit que temps a gis nañ que ni am na ay couvre-feu tamit yooyu yow loolu noonu noo ko gisee. waaw di di wax ne rek donc loolu aussi vraiment. mu hmm. ñëpp dañ koy rafetlu euh, di wax ni na euh, premier pas sax ci xeex bi nga xamante ni si président euh, ñu ngi koy ñu ngi koy teg pour xeex li ñuy wax Covid 19. Hmm. waaw jàpp naa ne boo xoolee fii ci gars yi le commandant bi nga xamante ni si moom moo jiite brigade de gendarmerie bi le commandant Samb mu nekk suñu collaborateur di suñu partenaire également ci li nga xamante ni si moom ñëpp gis nañu liggéey bu nga xam ne euh, euh, ñu ngi koy def ci liggéey bi démb rek boo xoolee ci marché bi vraiment ñëw nañ fi wàcc fi ngir fexe nit ñi tamit ñu sàmmoon teg ndigal yi nga xamante ni si moom la moom la nguur gi digle hmm. di woo askan wi rek ñu am compréhension xam ni lii nga xamante ni si moom la ñuy xeex pour ñëpp la hmm. na ci ñëpp ànd euh, conformé wu ci ci ci ci ci ci ci ndigal yi hmm. bu ko defee incha allah rabi ñu mën a xeex ñu mën a xeex wokk bi jeunes yi également ñi nga xamante ni si ñoo ngi nekk biir koñ yi hmm. euh, guddi gi ñuy génn di daafante ak gendarme yooyu yooyu noonu parce que dañ koy gis fii ci dëkk bi hmm. donc loolu aussi tamit vraiment mu nekk ay actes responsable hmm. ñi woo jeunes vraiment parce que loolu noonu ñu bàyyi ko te sàmmante ak tere yi gëm naa ne lépp lu doon jënd boo góorgóorloo ba huit heures boo duggee sa kër ñoo ngi bépp dëkk bu mu laal képp ku mu faas yàlla suuf sedd sa kaw courage votre victoire sera celle de l'humanité hengari jamano mobe lobe ko ewada hengari jamano huwalu bebe ko galano ewada bemino Africa kemarin dirayat Yesus Beminoen yo Hirmen den alla mawɗo bitoro den alla mawɗo wala en nde ɗo nawnare hande wawa lépp lu aju ci coronavirus képp ku yëg ay symptômes ci sa yaram mën nga woote ci numéro yi 15 15 wala 800 00 50 50 sol sa masque toog sa kër xaar ñu jël si la te nga ànd ak dal